champion ziara o waaw num golle namo o kor mari kor mari kor mari gen tam mar fa fako mar fa fako waaw kor mari anda xe tona xay laga nok waaw anda num ne um mose mafir wala non non um koy um mose mafir non non non non xay u soog xay nu soogum mafri da nam ge de to xeda o yaalo ci am te xum quoi a waaw waaw xale ka supporter ko xay waaw leya den de ñaananaam rek ndax moom amaramaro wadora ina ñanek i kena jeka koy xana jeg i yaam mi victoire ɓisidum ndam ɓisidum garama gar pour o maaf i xeɗa ñaan rek gor mari a maaf rel combat nan neke nda a maafir combat waaw i xeke ref troisiéme combat es arène bore door nda xeke simple a ref quoi i ndam jegaam deux combat arène combien de victoire jego combien jegam eh, trois combats jogunu eh, deux victoire okira okira troisième combat we do do victoire okira troisième combat we to sedamo yalde ci am den victoire quoi eh, aja jege baro la amusa ah. amusa ko le meilleur gagnant ok merci jajeuf champion bega nga ba bega su delo bega champion ki nga andal ki nga wara boré est xam nga ko wa xamna ko bu baax nu mu martis martis wa mos ngeen aboré non non Il y a ko def def ngeen daje fi Palmarès? waaw lay wax sa supporter yi ah di lan wa ñu ñu gëna jappu rek est-ce que nga bëre combat yu mel waaw nga bëre waaw la fi ci Palmarès? waaw c'est la première fois la c'est deuxième fois c'est la deuxième fois waaw waaw ah, ah. légui lay wax sa supporter yi ah di di gërëm rek di wa tamit ñu ñaanal ma tamit ah waaw jaajëf le merci ko nga paax waaw ma ngay ziaré ci mor nam golle 15 nangan 15 nangan nangan sambu nangan sambu ha ah? iya, 15 iya. andare ma fi dida ma xale anadu ma paax lu ma sama wala 4 1 ina jam mi Kat 4 4 xay fiyan kan 5 ke xay fiyan kan 5 kaga asira asira ma paax 15 inge ya garon jom ne ko oh, yona no dato mi euh asi kambay ke yona supporter ke yona mais mais kan de confiance na mi rek waaw ken taw mi mom jom rek ma rek tam

maxa refu cuwala refu mbamar vraiment kaga a doya waar i kaga jegule ye ten genu mar fa ɓesa gen cuwala bo i ndef jong quoi ndiki oxe mafritida est ce que andano andanum a paax 15 andanum a paax nu mosa mafe i maaf le deux fois un un yo ten na letna we a fiya tig pir a leyama faaf 5 wa kene a foog na njom dee dengan ke nu kana kaana foog na njom yaam ambiance o kaaga waage ñak ndiki wo fo xale ka supporter ko ando xaye den ndefanong waaw goye mom vraiment jegim ndafit den vraiment goye ka yonta ay minjol jegim ndafit den di xeda roog rek yasam bo yasam roga sut seetaane na yoon in i seetaane refete nda aussi xeda rek ba mutu wata mo sorok sen vraiment ngeen waxam ngeen ma trop a biye ken commande mi den jangu na njikooxi na ɓisidaam xaalis fe fandi fa ndik inooxim roog andaan santawa boy ko yoni duma yon duma de ngati jolam budi jomno santa aussi ata grand frère kemi combane de bina de ngeno kede mina den xali a xopa 500000 duma boy ke ludi dom 50000 boy ke ludi dom 40000 fi na xam to anda amana amana ñoyinum fa den quoi lu ka sax wallahi asim amos amos ok a jega solo eh? ko le meilleur ah? gagnant wa inshallah ok wa bege a xongo paax paax nam golle ndisu ndisu ndisu gentam marloge Mar Lodj anda xettona jomni i namane Mbaye Mbaye Diop nan ngeddo combat no fu diggante um combat fo de ah, a heɗa ci am dam rek i ka suma ref nu mose mafir no mose mafir ndiki waxane ka supporteur ke mbatna bo am mar a njotir foole supporteur ke gidma den rek tegimu ndafid den yakata bo sa defona a mbas calale ka den yaam ko sagu es kon tegim ngi ndafid den na kutira ko roga ma daan ke wara ma am fiin sik yam ke wara jalan mbiyan ke wara mam fin bodomo billahi wala taala yam tay minda na fitere ko ke ka buga billahi wala taala ajiga solo ki ñam som yoko jege dit aja jaayef ko la mer gaña wa merci way merci way jege dit merci way champion serama pa yi bonam champion na golle lagandong ah lagandong lagandong yi gen rum sate ma gen fajut fajuta ah? yi waxati do isi andano no andinuma pa koy andino non non e roga fi nu jeg combat meke ngatin saate fe leya ye palmarin nam ne xay wa mais gidma we mbel tidaxama rek koy ndam na no combat fe fop i xeɗa roog itam te ceeno ndam rek i yo xeɗa yaale ti caamo ndam rek inchallah ale ka supporter ke ando den batu ma bo suwale refe na ngel le palmarin pour a mbudano xeene ne lagandong njom mais gidma den a paax paax i parce que yooɓe quoi i a jajayof ko le maire gaña fa mosa champion ziara on bah, wa delloo ziar delloo ziar champion nam golle mam fade Diofior mam fade Diofior e o jeg combat saate fe palmarès ma mafrita gen palmarès are à domicile nam jo'atano njom ah wa njom rek a reega iyo njom rek a reega mosa mafri fu non non i mose ma mosiro musa ma ten ndiki wo fo xooxof euh, a tokale inoor tiidoona yor bo meke xum yeg yeg jego teen waaw kontaante na pa a baax kontaante na pa waaw yaam fan si ke moom mooy loolu mais gidma den te yaakaara den iyo kontaante na pa ale ka supporter ko ande den batuma Diof yo rambat na angarin ngel ne palmarès ndax mbudo na ma fa den ñob i ten na engrais mais kontaan na kontaan na den jegim ndabid den bilaay walaay ndam rek a rek a felanga roog a ligin tamba mi xaluna den ki ande ten rek e bidona waaw iyo inshallah a felanga roog aca kon le meilleur gagnant jaajëf waaw Double Moteur roog a fi'u jeg combat xaye re à domicile nam ge to njomne waay njomne a felka rek bilaay a felka rek oxe xetoona andano i e, mam fade andanum a paax kay mosa mafir fo ten non non mose mafir koy nu mose mafir c'est la première fois so getraye quoi ah. roog a fi'u re na xeewof re na saate of nam ge oye nen wiin we ngeno tong xaye nanim nawina ngeɗo ton kay sate o a ah, giyane de ngenortama de wiya mais sate fe fop ndewi dam quoi cuwalan naye ke sawawomole fop ndewi dam bilay ale ka supporteur ko wa supporteur ke jemi ndabid den bilay bo combat fe ka geno ay gimama gime deno quoi parce que de watti keke waaw amma danidam damit kon jemi ndabid den xajama den faro quoi aca ko le maire gagne jajef kontaan na rek ndanaan nam gol biram sengor mertis martis wow, gentam marfa ko marfa ko Wow, uh, eh, andare mafritida i iya, andanum namane usane us no mosa mafir non non mose mafir nam geto combat no digante mo xay tan rek parce que bo mi mare ha fa hom ande fande sate fa non bugo hamam bug mi mafrel men sak njom mbapat sa wasinum parce que o detanga pir make wala moromes bok o jabna mafridel meke mbapat maye ni mbir fa sa yurefum billahi wallahi tallahi njom som fiya sadarim dara même o xoyanangam o kin kamando kum sa im mafrit maaga mi leyomo ten man danan la ndanan sibir ndanan bo doonul ndanan sa sa sama bos mo sare amna solo waaw contane rek deg na la ligi nak xale ka supporter ko non supporter ke kontan na rek parce que kam den a miñamo mbuda victoire mayu jeganum na ar i victoire mayu nak mayu jangama den jom contane ma contane gidma korum ma ke sollengo ha genna simal dengo ane fapa gorgi gorgi sar gidman ko awam go anga mad njom bo xay o sogum tawun ala xama conseiller xam aussi naki ando naye bugum gidman to an ñananan heɗan rogo yaalo ya cin jam a cino woda cin jam fam moyɗan da ba on noon a wagno ten dara i contanana fapa gorgi sar simal contanan simala fop i a de contano ɓideno i den ñananam roog soode an fop a fawa a